garde des Sceaux monsieur les ministres chers collaborateurs des ministres maa ngi nuyu ku ci honorable député chers collègues madame la ministre da ngeen ñu indi loi ci amnistie ñu wax février 2021 ak février 2024 moom lañ fas juste pour rappel on a emprisonné des gens et nos citoyens on a même qualifié certains de terroristes. On nous dit que des stations totales ont été saccagées. On nous dit que des universités aussi ont été brûlées. Près de 1000 personnes ont perdu leur emploi. Il y a des jeunes qui ont été utilisés comme boucliers. Il y a des manifestants qui ont été sauvagement tués et par des balles réelles, on nous dit. On nous dit aussi que les pertes en vies humaines, mais aussi les pertes en matériel, ne peuvent pas être quantifiées parce que nombre de nga qui si Madame la ministre au nom de la réconciliation nationale au nom de la paix on doit oublier tous ces faits-là est-ce que nous ñi fi pas mettre en place ñi nga xamante si gën a métti nag mooy ñi nga xam ne dañ ci ñàkk seen bakkan waa est-ce que ku ñàkk sa doom wala nga ñàkk ci sa papa wala nga ñàkk ci sa yaay ci condition yi nga xamante ne si noonu lañ leen faatee est-ce que kooku mën na ñëw taxaw wax ne tey dama fas yéenee baale ñun on est qui pour pardonner on est des représentants de l'Assemblée nationale on est des représentants du peuple mais est-ce que peuple bi ñun loolu la ñu sant mettre ci place ñi nga xamante ne si ñooñ la loolu dal di nga am beneen comportement boo xamante ne si du bokk comportement bi quand on défile sur les images ba gis jeunes yi nga xamante ne si dañ leen abaat le jeune Cheikh Gueye bi nga xam ne moom bokk na ci ñu njëkk a rey ci manifestation yi en mars 2021 ay ñoo xamante ne si ay xale lañ nekk di wut lan moo tax ñu rey leen c'est parce que dañu génnoon di combattre li nga xam ne moom mooy injustice li nga xam ne jàpp nañ ne seen démocratie ak seen état de droit moom la ñuy waa tey ñu ne dañuy ñëw di baale olof daf ne garabu dëgg dafa am lu koy loo xam ne wala garabu jàmm daa am loo xam ne moom mooy soubassement bi te moom mooy dëgg rétablissons la vérité des faits ñi nga xamante ne si dañ leen war a condamné ñu condamné leen leneen li nga xam ne nag ñenn ñi yàlla may na leen seen xol ñu mën a baale ñu mën a baale mais am na loo xam ne jàpp naa ne c'est pas de notre ñun ne serait-ce que pour la mémoire de ces jeunes, majoritairement qui sont décédés, ne serait-ce que pour la mémoire de ces martyrs, nous avons sur le champ du combat. Madame la ministre, vous avez une loi d'amnistie. Pourquoi adopter une posture Là, en commission, la grâce amnistiante. Ça pouvait permettre de détecter les gens ñii la mais ñi nga xamante ci crime lañu def ñoñu ñu continuer def li nga xamante ci loolu la ci yoon wax yañu ñu ne bi fi mujjé que la justice est trop sérieuse elle est trop sérieuse pour qu'on s'amuse man japp naa ne li ñuy def on est en train de nous amuser avec la justice et vous avez même rajouté que la vérité aussi est trop sérieuse pour qu'on s'amuse avec nga rajouté ñu laajoon la ne la madame la ministre est-ce qu'il y a une justice pour ñii wala pour ñii nga non non il y a une seule justice et cette justice là doit être rendue au nom de ce peuple là. tey jii est-ce que ñi gaañu dee ci manifestation est-ce que ñi ñu torturé est-ce que ñi nga ñu yàqal ñooñu ils n'ont pas droit à la justice je dis non eux aussi ils ont droit à la justice nañu fexe ba li war a leer leer beneen bi nga xamante ne si moom la muy dellu ci wàllu communication bi le fameux numéro 9 bi newoon di tiré est-ce que kooku day dugg ci article premier bi ci ñi nga xamante ne si dañu def support de communication yi parce que Sénégal dafa am foo xamné ne dafi toll ñu meloon ni ku nekk ci Nollywood ay nit di génn di tiré lo xamné ci ay film rek nga koy gis wa léegi loolu yëpp dañuy def table rase mu jall je pense que le Sénégal mérite beaucoup plus le président Macky Sall je pense que honorable député yi and ak ñom war nañ ko mëna rendre service parce que je pense bien que le soldat est à terre te soldat nak bu nekké à terre ñi nga xamante ci ñom la andal ñoko wara jappalé ci li nga xamante ci loolu la nekk motax je dis non. à cette merci cher collègue merci beaucoup.